démb ma mbay ñoo ànd lal jure bi mu wàccee garam bi yaa man ma wàcc ci fekk ko ma ko fekk roq mu jaay client xaar ko xaar client bi jëndut ma ne ko léegi municipal yi gis naa ñuy dàq gaay xaar ma dem xool ma dem woo gaay ñun ma municipal ñu ñuy dàq ma tur la ni ko jugeel fii nga lalkat fii nga taxawkat ndax municipal yi mën nañ dafay bet mu jaay client bi ñëw dab ma ñu ñibbi li lay wanal ni nit ki dafa reb ñuy ñibbi maa ngoom de ak baara ñu dem ba côté marque bi maa mbay moo ma wooteel ba xam gaay lalaat nañ wala déet te maa mbay koo lal man xam naa ko bu baax du lal heure boobu moom ma woote ci rajo mu ni ma ñu ngi lal ci bokkaay ma ñëw lal ci lal nii mambay lal nii ñu taxaw di waxtaan dañ taxaw di waxtaan taxaw di waxtaan ba jàgg lañ gis ñaari municipal yi daaxe gaa yi digg ba ca suuf danoo jël kaat yi gaa yi daw xam naa dañ fa laal nit municipal yi dàq leen ma xam ni gaa yi dawee du jàmm mën leen daw leen ñu dem ñu daaw wax côté Mayar ko mën dugg leen nii bu leen jaar côté bi côté bi ma déggaat oto yi wii wii bi ba leen municipal dañoo laal rouge léegi nañ teggi daw gi ma génn nii laalaatinaa bi dem ñibbi ñoom ñu ñoom ñu jiitu ma di daw man ma topp seen ginnaaw léegi groupe bi dafa bëri woon biñ dikkee nag ba côté Mambay war a jàdd si këram groupe bi ci la gars yi oto oto municipal lañ seen muy ñëw gars yi tas ku nekk jaar fenn dugg sa kër mais oto bi waxuñu dara wax ba dëgg yàlla léegi Mambay moo jàdd Mambay man maam Thierno Seye Moussa Wele ak Moodu booy muudu mu njool ñun ñoo jaati ci mbedd mi léegi fekk na Mame Mbaye waxoon na loo ko ko soon sonn taman boobu fekkee ma ko maa woon si léegi man bi ma dikkee ta ba tolloog Mame Mbaye daal koy ma li nga tal kat tëlu ma ko tëj ma ne ko waaye comme dara daa xew te policiers yi léegi nañ dox ndànk yéeg sa kër defee nga daan ndox tal pour man garaawul noonu ni ma waaw après ñu bàyyi loolu ba ma wax naan yaa ngi dégg sa gars yi Sénégal mu ne ma ah gars yi de mu ne wuutu ma woo ma waxaat mu tontu ma waxaat maam Mbaye tontuwaat ma troisième fois bi tontu ma bi may sigg di xool maam Mbaye la maam Mbaye doon daanoo kanam. man maa ko téye sama tànk maa ko kale sama tànk mu taxaw nii après ñaari tubaab daw ñëw. Oh, ah, ku jigéen kirima bul ko bàyyi mu mu wan la làmmiñ ndax daa mel ni daa daa crise man li laa jëlee sama loxo dugal ko ci digg gi pour mu baña pour mu baña ñep ma duggal ko ci tuba bi jox ma ben paquet ma boole paquet bi ak sama loxo duggal ci biir gémmiñu mambe ma siggi ñom Moussa tir xol ma ni tir ma ko Moussa man ma man ko jëlal bagage yaa gooy ngir yobbu yóbbu ko xam police di ñëw après ñom biñu dem ama ñuy jeq ñaari pa lama tuba bi ni ma bëgg na wo samut me yoruma téléphone ma ma boole téléphone ak mambay ak sama bes jox ko bu mambay ab code sama bes amul code mu jël sama bes wo ci samur samur nak tardé na <laughs> waaye tamit ñun biñu dugg ci kayam am municipal toog bu ñu wax dëgg yàlla ci bu wax rek jotee te damay sangoo sama te dëdd sama fii nii am moto dàquñu dara dàquñu bi ñuy dugg bi ñuy egg si foofu dañ doon dox maa moom ak ñett ñaar ñaar ñi ma àndaloon man ngeen leen a woo ñu laaj affaire bi nu mu demee léegi man maa gis oto municipal bi dugg xaw ma oto municipal fu mu demoon ak fu mu jugee lu mu doon def wax dëgg yàlla dama ko gis rek mu dugg mbedd mi man maa daw def nii sama benn loxo téye beneen loxo bi ci gémmiñu Mame Mbaye municipal bi mu dikkee wàcc ni ma lu xew fii mën ko kii dafa xëm municipal bi daal may puus daal ni ma bàyyi ko bu max ma léegi man ci ko bàyyee ak municipal bi moom mu nekk di ko bës léegi nag ci la moto yi ak oto yi yëpp di daw di ñëw commencé ñëw pour tàgg yoon yi pour ñun génne ñu loolu moo fa am après samur samur ñëw bi muy ñëw tamit man waaye taxaw foofu mais ñun man dara topp ñu suñu ginnaaw di ñu dàq noonu ba ëgsi bi bi ñu ma waxee tamit laajee tamit ni ma def demal déclaration xamal naa leen dañ ñoo dàq sol bu fekkee dara da koo dal ci diggante bi mu daw ndax foofu noonu daw dawuñu fa nang dañoo daw ay xel dañoo daw bu baax a baax bu dugg ci mayor bi ñëpp loolu moo fa xew ci loo xamante ni man wax dëgg yàlla fekke naa bëgg naa tamit nag bu ma ci waxee ba pare ngeen dimbali ma li laay war a sooli kenn bañ ma cee laaj dara ndax binu ma ci dara te xalaatuma ko te keefam dem dinaa ko fekk barke Sëriñ kontaan nañ ci yow